salaamaaleykum patriote yi nuyu naa ñëpp ziar ñëpp mais gars yi leen fàttee set setal bi pour le 6 communication bi des na lu bare bare bare bare donc gis naa booy ñaar def na ci communica communication pour que sénégalais yi génn def set setal pour le 6 c' est très important avant nawet bi lii nii set setal bi bu ko defee ñu curé comme ni ñu curé woon bële passé ma la ndox du taxaw ci dëkk bi ndox du taxaw ci dëkk bi wala boog bu inondation day am tamit du bëri parce que état bi mi ngi def liggéey bu ci curage bi ñëpp teg nañ seen bët donc bu population bi jógee defal ko xam ni seen bopp lañu koy defal génn ci mbedd yi ku ci nekk sa koñ xam nga fi ndox mi di taa xam nga jeunesse bi ñi nga xam te ne ASC yi àndandoo liggéey ko defaluñ ko état defaluñ ko kenn seen bopp lañ koy defaral koñ yu mel ni mbaaw fi ma fi ma nekk nii yoon yi dafay am ay égout dafay am égout yi dafa fatt bu population bi jeunesse bi génnee def ko seen bopp lañ koy defal ndox mi bu ñëwee day dem ñoom ñooy dox ci taataay ñoom ñooy am donc le 6 set setal bi bu leen ko fàttee ku ci nekk na génn defal ko boppam xam ni boppam la koy defal benn deuxièmement mooy wax ci projet de loi bi nga xam te ne waa PDS dañu dañ koy dugal que delloo lépp lu ñu dindoon ci règlement intérieur assemblée nationale bi pour ñu delloowaat ko ci pour que premier a ñëw def déclaration politique générale am loolu la PDS bëgg loolu moo tax ñu benn projet dugal benn projet de loi bu bees pour que ñu delloowaat lépp loo xam te ni mooy mooy liñ ci dindee woon mooy déclaration politique générale ay affaire ni sax euh, euh, motion de censure gi yëpp dañ ko dindi woon ah loolu moo tax premier ministre bu demoon tey ji assemblée nationale di def déclaration loolu serait illégal donc ñi fi nekk yëpp di wax naa euh, Ousmane Sonko dafa war dem assemblée nationale ñooñu waxu naa feq ak waxu seetaan la ñuy wax mais waxuñu dëgg waxuñu droit waxuñu yoon donc lu ñu buñ lu ñu dindi ci euh, règlement intérieur assemblée nationale te loi moo ne nañ ko def mais loi moo ko nañ ko def mais mais règlement intérieur assemblée nationale loolu nekk ci Ousmane Sonko ni leen defaraat leen seen defaraat leen ko pour ngeen bëggee ma ñëw max man pare naa bu yàgg maa ngi dégg Thierno Bocoum démb muy wax naan keroog muy wax naan donc euh, euh, premier ministre Ousmane Ousmane Sonko. que premier ministre Ousmane Sonko dafa def injonction ci liggéey assemblée nationale dafa def dafa dugg ci seen liggéey mel ni ku leen di jox ndigal mel ni ku leen di jaay doole day jéem jaxase quoi mooy cër na bokkum seen façon politique yu yàgg yooyu mais loolu du dëgg. le ministre Ousmane Sonko duggul ci waxu assemblée nationale deful injonction seen ay mbir da leen a demandé pour que ñu xoolaat règlement intérieur bi ñu defaraat ko parce moom pare na pour ñëw assemblée def déclaration politique générale bu ñu ko deful nag d'ici le 15 moom dina def déclaration ci kanamu askan wi woo ay nit woo lii ak lii def déclaration bi bëgg a def fi mu jëmale Sénégal donc loolu la wax ça n'a rien à ak manipulation yi nga xam te ne moom la Thierno Bocoum def ça n'a rien à voir waa PDS déposé nañ projet de loi mais fekkoon na boobu Bara Dolly Mbacké boobu noonu déposé woon même projet de loi pour que ñu dugal yooyu ñu dindi woon ci poste premier ministre bi ñu dindi yooyu ko donc muy ñaar ñoo xamante ni Bara Dolly dugal na waa PDS dugal nañu pour que ñu woote pour mun a dugalaat lépp pour que premier ministre Ousmane Sonko a jëw def déclaration politique générale bu ñu jógee ci loolu may na informé Thierno Bocoum doon na laaj présidence moom lu jëm ci hôtel Azalaï naan mi ngi koy laaj hôtel Azalaït xuma lan ak lan ak lan donc mu bëgg a xamal Thierno boo bokkum rek ni ko bu amee lu muy laaj président Ousmane Sonko ci affaire hôtel Azalaït bu amee lu muy laaj moom Thierno Bocoum na ko dem laaj Macky sàll ak Mame Mbaye Niang parce que ñoom ñoo inauguré hôtel bi ñoo jox waa ji autorisation ñoo joxe littoral bi ak xaw ma ñaata hectare lu munti am sénégalais bu ne am nga droit dem tëdd fa sénégalais bu ne am nga droit dem dem dem fay bu fekkee ñoom seen lépp ñu ngi ko teg ci yoon parce que ubbi nañu ba Macky Sall moo ko inauguré mi ngi nii ak Mame Mbaye Niang ministre du tourisme donc bu amee lu muy laaj moom kenn bokkum ci lu jëm ci hôtel Azalaï ne dagg avion dem fekk waa ji Maroc dem posé ko ay question ci loolu mais du Ousmane Sonko la koy laaj wala Bassirou Diomaye Faye donc na bàyyi caaxaana mi ak tappale mi hôtel Azalaï soo amee loo ci laaj yow Thierno Bocoum demal nga laaj ko Macky Sall wala nga laaj ko mambay Mbaye demal nga jël avion nga dem fekk waa ji kenn ki Canada wala nga dem fekk keneen ki keneen ki Maroc nga laaj leen hôtel Azalaï bi naka la dem mais Ousmane Sonko nga koy laaj wala Bassirou Diomaye Faye nga ko laaj ñoom nag ay sénégalais lañ man su ma mën lay moyen am naa droit dem tëdd fa week-end noppalu mais lu jëm ci ubbi bi ak yu demee noonu boo ci laaj demal nga laaj ko Macky Sall wala Mame Mbaye Niang